saa waay dama leen di wax rek que pendant cette période là métti woon na lool ci Adji Sarr ak avocat ndax gis woon kenn j'étais seul seul seul seul seul sur le terrain ku ma woo ma wuyu conférence de presse laay def suñu conférence de presse xale yi xale yooyu may wax les chiens de Sonko ñu mettre leen en mouvement en action ñuy saaga rek c'est des journalistes que j'ai nommé comme Pape Alé Niang mi nga xam ne site bi mu yore Sonko moo ko ko may Ahmed Aïdara bu Sen TV Mansour Diop bu Sen TV Abdou Ndiaye Fall Abdou Ndiaye bu Sen TV Ndeye bu Sen TV journaliste réactionnaire yooyu nga xam ne anti pouvoir lañ nekk pour Adji Sarr yëg ma ci bandi boobu kooku dafa fet ba nëpp kooku damay ragal bu demee bàmmeelam lan lay wax ci fen bii bàkkaar bi gën a rëy tey aji saar woote na nee aji saar daw na aji saar dof na aji saar xelam nekk tu ci moom dégg ngeen aji saar nga wax ak ñaan fi ñaan gërëm yi yim gërëm waa Kodas ak Me El Hadji waaye ba mu ko jógee du góor di ko seetal deret deret du jaam la yor ay mbokkam bu jur jaam moom jaam la mën na nekk nag bokk ci ñu baax mais mais dañ ni dañ ni man nga julli ci gëléem nàmp ci mbaam baal ko turi bu dee doo jaam yow yaay julli ci gëléem nàmp ci mbaam say bokk say jabar say doom say maam say baay say ndey toroxal nga leen yaa mën a kàcc mais boo ko turi da ngay fene yow yaa tey yaay yow yow yaay baadoola mais Babacar Touré mooy mooy salte ordure mais day fen di fen pour jox Sonko dëgg mais Sonko kenn mënu ko setal ponkal moo xam ni couvre-feu ñu ne bu kenn génn ngay génn bàyyi sa garde corps nëbbu leen yow ngay génn bàyyi sa chauffeur nëbbu ko ngay génn bàyyi borom robe rouge la xaw ma si bu rouge nëbb ko yow nga dem fooy dem fuy lay dee di wut ñu raay la ñëpp naan dama fale dama fale mu demoon naa kay nga demoon naa waaye dama am métti xam ni sama ginnaaw depuis ma nekk xale ba léegi bu ma dalee damay sonn lool. bu ma dalee doo xam ne nekk il faut laal ma ñu ne ko waaw ne kon damay dem faj ci guddi gi ku koy faj aji saar fu mu jàngee loolu sonko ko mu yàpp ko na bàyyi di foyee xelu nit ñi waay soo ko bàyyi foyee xelu nit ñi sa yaram di métti depuis nga nekk xale nga yaram feebar bu garaaw xale bu jër naa bi faj yaram yow moo lay faj yow yaa mën a kàcc soo ko bàyyi kàcc waaye